nuyu naa la di la siyaar di la wax ne la joxoon naa la rendez-vous ne la dinaa la defoon naa ko dige bor indiwaatal naa leen kenn ki nag ma leen di indil moom je pense que présentation bi jarul ko ñu xam ne ko mais ci li muy yëngu dafa wuuteeg ñeneen ndax moom dafa yëngu ci wàllu décoration ci lan lay décorer ci néeg wala ci kër wala ci oto dinañ ko découvrir léegi ñu ah. mais frère comment vas-tu. maa ngi nii ah. maa ngi ci jàmm si si maa ngi ci jàmm yow nag. Tyco Tatou hmm. bu la si neex rek Tyco Tatou. yes. mais luy Tyco Tatou. en fait Tyco Tyco sama sama surnom la ba Tatou mooy tatouage en anglais ba du coup kon mais comme que man tatouage lay liggéey moo tax ñu ne Tyco Tatou. Euh, mi ngi mel ni ñu ne mbay menuisier. ah ok waaye comme noonu quoi waaye comme noonu quoi bi ak liggéey bi ñooy ànd. ok kon ñoo gisee ba ñu nag mu nekk mu am ku muy defaral et puis occasion la ñu gis ko. parce lii moom je pense que yomb la mais surtout dëgg-dëgg nan la. man Jibril Njoogu Diop laa tudd. ah mais Tyco bi moo gën a moo gën a siiw quoi parce que ba mooy euh, ci li ci li may liggéey. loolu moo tax gaa yi gars yi yi xam ma ci quoi mais li muy liggéey. Tyco bi la voilà mooy nom d'artiste bi si Mhm. donc mu doon loo xam ne loo jàng la wala da nga def formation wala je sais pas dafa am ko doon def sa famille nga xëy def ko. non non non euh, man moom sama sama famille ba bu dee ay côté dessin ma ay côté dessin wala ay ay tableau ay tout tout du genre mais instant kenn defu ko man man maa mënoon dessin euh, temps yi nekkee xale. et tout euh, tatouage dessin là et tout léegi ci laa commencé ci laa commencé demal sama bopp quoi mais def ma formation jàngu ma ko fenn quand donc vous dem ba ci biir yow à quel âge vous commencez pour ba mu xëy rek mu tatouage man mais man bi ma 13 euh, ans là, de son premier tatouage mais sama sama sama yaram Ça woon sama yaram en fait ci là, de son premier tatouage mais def euh, mais en fait tatouage euh, c'était pas pour pour Nini, en fait tatouage juste pour juste pour man ok

waaw ah, jurli quoi. lan mo lu ci dugal xaalis mo lu ci dugal wala da nga dem ba ben instant nga gis na liggéey bi doxna gaay gars yi ñu ngi jaale message bi defal le publicité gratuite et puis c'est parti quoi. non non non euh, euh, non dugal sax mais pas parce que man mais boo seetloo comme sank newoon tatouage ba c'était juste pour pour man quoi c'était juste pour sama yaram. mais parce que mhm. quoi ba sama bëgg-bëgg loon quoi. léegi nag euh, nit ñi dañ cey gis ñu na waaw ku la defaral ku la defal et tout léegi mané man quoi maa sama bopp li ñu nane defaral ma. mais mais boobu temps c'était pas da ngay dama lay fayeeku ko parce que man xaalis duggul ma ci woon léegi nag dama wax rek waaye mën naa ko defar mais encre bi lay jaay tout boo jëndee encre bi encre bi ñu koy defee quoi léegi man baa poso cherul dama jël poso defaral ko bu desee maa koy jël mais ko jëlee ñu ko commencé di sonnal euh, ku nekk naan ma defal ma defal ma et nekk métier quoi waaw léegi nag euh, ñoom bi ñu ma commencé sonnal naa defal defal ma man bàyyi naa parce que dañu war a sonnal

lo wax ñu ne non jigen ñi effectivement sax. parce que jigen ñi soit dañuy gëna fay. wala je sais pas lan mo le ci neex quoi wala yow ñi la gëna non non non xam je euh, euh, euh, nekkul loolu dafa mi ngi mi ngi wala kuy mais kuy da ngay ñuy comprendre nga ñuy commander da ngay ba wala mami mais tamit du choisir comprends parce que da ngay en euh, fait. da ngay jaay da ngay jaay sa produit da ngay jaay ok léegi boo toogee ba euh, dafa nekk produit boo xam ne ñii ñoo ko catégorie bi ñoo ko gën a demandé quoi catégorie ba moom mooy jigéen ñi parce que quoi euh, mais mais comme en moom moo gën a mën a dépenser ci ko góor moo tax man su man mën naa toog ay deux mois ma tot góor. mais moo tax mu jaaxal ma man bi ma déggee ne parce que man c'est la première fois ma ñëw bon musuma fi ñëw sax la première fois mais musuma dégg da ngay tatoué góor quoi mënul ñàkk mais man dama ci daal tey. Mm-hmm. kon Sonko gëm naa mais man li ma li ma li ma li ma li ma gën a jaaxal mooy. Ah. jigéen ñi ngay wax ci pour ñu xuus ci. cest à bu ñuy tatoué par rapport ak kii exemple moom bras bi la ah. def. Ah. mais jigéen ñi ñoom partout la ñuy tatoué. partout partout donc kon ça veut dire que gën a dox. foofu gën a dox non non mais foofu gënul dox sax euh, moo tax sànq ma ma ne nii comme comme jigéen ñi ñoom ñoo gën a. ñoom ñoo gën a mën nangu quoi dépenser ci seen yaram. seen yaram mooy comme ay greffage ay wee ay. waaw mais waaw mais looloo gën a dox mooy que jigéen ñi moom seen lépp la ñuy tatu. donc moo gën a dox. Ah. ah booy nag noo waxal wax ji booy. non non xoolal euh, pas loolu sax mais mais supposons comme jigéen euh, jigéen buy ñëw buy tatoué exemple partie intime comprend nga ba foofu noonu doo fa def lu ngante parce que foofu du ko boobu ngandewul léegi kon prix boobu noonu day ndaw mais supposons kii lii moo gën a cher lii moo gën a dox mais jusque ne les modèles leen lañ gën a demandé waaw non li muy ndaw yëpp lële sew diis la li muy ndaw yëpp noonu la dangereux booy bàyyi sa xel mi ngay fawee lii li muy rëy yëpp amul njëriñ ci yow ah ah bien xaalis la mais lële dafa yéeme parce que su may wax loolu man je parle en tant que góor mm-hmm. góor nga may góor jigéen ñëw tey bu jigéen toogoon tey léegi ne la sama partie intime benn point laa fa bëgg a def kii ñëw jox la bras droit xaw devant bras bi naan la def ci dara. mais ban nga ci gën a mën a sawar. ba ñoom ñaar ah? ci njëkk jël ba pare. Euh, euh, euh, mais bu a jël. femme bi a ñëw bu fekkee ni kii moo njëkk a ñëw te ko doon bëgg a nekkul ni kii moom gën a kii moom gën a neex moom laa ñu commencé euh, en fait du liggéey loolu kii la quoi loolu foo la nga def loo xam ne ba. folo quoi la mais non mais liggéey bi nag quand même demande de concentration certes. mais aussi fo mi ngi ci góor nga man da ngay fo góor ngay waxal da ngay fo. en fait maanaam en euh, foo. waaw mun naa foowee ci leneen ci li xool mais mais tamit euh, du ma am temps foo parce que parce que. la ngay liggéey. voilà maanaam xool ci li may li may liggéey nii. Euh, da ngay teel a commencé da ngay guddee pare donc donc du coup su ma paree may yéeg comprendre nga mais comme man yenn temps yi sax affaire ay taaw def lii def lee et tout du ma ko sax am barki yàlla te dama koy bëgg a am. mais loolu laa lay wax li nga bëgg am di nga ko am parce xam nga lu tax ma wax loolu booy. bon pour ne pas trop ñu nekk fii di di di di di di di dagg di dugg di génn. c'est-à-dire que femmes yi ñëw. di di def tatouage ci seen yaram. man partie intime boobu noonu c'est pas daf ma intéressé mais nit ñi dañ ciy poser question lu baree baree bari. tato taat rek lay nu mu tudd euh, tatoué taat daal xam naa ne dox na ci moom trop trop taat nag daa bari façon buñ koy wax peut-être que taat am na kanam am na gannaaw. waaw waaw mais léegi c'est les deux en fait soo ko cumulé boole ko di nga ci am xaalis am ci plaisir. bah oui j'avoue ba euh, euh, bu boobaa moom xam nga genre liggéey boo gis liggéey boo gis maanaam client bu ñu ñëwee rek yow mun naa ne yaa ngi dox na quand comprendre mais tamit euh, sama liggéey ak yeneen liggéey bokkul parce que quoi mais man ci yaramu nit laay liggéey. Mhm. mais yaramu nit am na loxo am na biir am na nakk am na pooj am na fu ne quoi. xam nga moo ci ëpp. Hmm. jigéen euh, comme comme ñi may recevoir jigéen ñi ñoo ci ëpp mais moo ci ëpp. moom mais euh, vrai ñoo xam ne sax xoolal dañuy ñëw quoi ñoom bu ñu ñëwee ñoom lu ñu wax ni tiko tatoué ma sama tat dañ ma tiko bënd ko xam bo bo gëna graw tat ngay bënd yow da ngay ful ni bënd ko normal xam xam bo bo gëna graw mais bo tamit rarement batay tamit rarement lañ koy def quand même bu dé tamit euh tatoué ci tat tamit man dam koy def mais tamit rarement quoi mais bu dé sourcil mom lool mom mom ci la mo yow boy da nga def chirurgie wala bay bënd tat yow ak di ubi tat di mais piercing piercing manam euh euh euh manam piercing mais piercing kay po la po bi ngay té ni bënn waaw mais attends bokay bënd quand même dafa laaj parce que tamit nit lu weñ tegu ci moom am ay médicaments yoy loy utiliser. waaw dañuy dem pharmacie wala dañuy seeti médecin ba paré wala yow da nga am relation ak médecin yi. man euh man amna relation ak médecin. bu fekkee ne mais parce que médecin boobu euh, moom mooy gérer des fois anesthésie anesthésie quoi comme comme kii dafa ragal et tout tout xam mom mom mom mu bëgg euh li du ko du ci dara dama koy woo ñoo wax ak moom prix et tout kooku anesthésier ko. fi la koy ñoo défé ko waaw fii la koy ñoo défé ko mais légui bu dé prix bi nag bu dé tatouage bi. loolu maa ngi moom la mais bu dee ñàkk yëg bi loolu moom ak moom ak médecin bi la. Ah, mais yow defoo ko. non non léegi xam nga mais mais léegi bu fekkee kii bi léegi bu fekkee wàllum euh, maanaam bien avant bënn bi lu mu war a naan et tout tout. Mhm. léegi euh, ñëpp xam nañ ne boo amee blessure boo xam ne dafa euh, interne la soit bu fekkee dafa neew yi da dem pharmacie ne ko anti inflammatoire la bëgg comme ko mhm. mais loolu moom baax c' est c' est c' est bas c' est. rôle médecin bi la quoi euh, mhm. ko naan. anesthésie bi moo a a koy gérer quoi. Ah, ok parce que man dama yaakaaroon ne yow yaay def loolu quoi. non non non ah,